compatriotes. bile yoon bindul Karim Wade dafa génn jàkkaarloog askanu réewu senegaal mu di guleet nag ba mu jógee ci réew mi ba léegi am na lu tollook juróom-ñaari at. wax na lu tolloog fukki simili ak juróom génn li ne ci xolam wax li muy réccu ak yéene gi mu am fi ci réewu senegaal àdduna it ci du ñel lii tax mu gëj ci biir réew mi ci gis-gisu professeur Abdou Khadre Senego discours bi jaar na yoon. contexte bi baax na. xaar na ba président Macky Sall def mu soog a def parce que defandoo bi moom kële mooy président te yow yoragoo dara kii mi ngi tàggatoo yow yaa ngi nuyoo di présenter sa bopp di joxe sa offre de programme. wax na lu tax mu demoon ñu exilé ko mais surtout wax na ci ni euh, li nga xam ne nii mooy màngaan mi moom dina ci xar tànk tubéyam ba benn sénégalais ak benn africain du demati bitim réew di loru ci géej gi. wax na aussi économiquement quartier yi gox goxaan yi nan la compter. pour mën ko développer. benn mbir daal laa fi gis mu xaw a nekk un peu lu ma jaaxal mooy le fait que mu def discours bi donc euh, foofu te ñëwul ba fii def see ko fi. lenn ngi ni nag lu muy rafetlu mooy ni Karim fësalee ni teewatul dara si xolam baal na képp koo xam ne def na ko lu ko lor te ko intéressé. du lenn lu dul jëmale kanam réewu Sénégal. parce que Sénégal nit mënu ko doxal te nga bëgg ko defee ci principe yoo xam ne ni wuute na ak principe bu démocratie yi ñuy ñëwee réew papam mi créé woon PDS daf ni du dox ci ay euh, ñuy faatu pour dem palais donc ku xam histoire PDS xam histoire papam mi nga xam ne nii moo sañ ci PDS ak bi mu nekkee président nga xam ni Karim su waxoon leneen lu dul jàmm ak salaam foofu lay jaaxale nii. jàpp na ne nag liggéey bi gën a am solo buy xaar Karim Meïssa Wade mooy fexe ba dajalewaat njabootu libéraux yi yëpp.